Serigne Touba bi ngir daal di fa dugg it amal ay ñaanam comme ni mu koy defee ndax boo xoolee visitam passé noonu la demee woon ah, loolu daal moom jamono ji xam naa yëfi du du yàgg ndax diggante timis ak euh, takkusaan dafa jege ñaantoo te sëriñ bi actuellement daa bëri ñu bare bëri ñoo xam ne itam ñu ngi koy xaarandi ñu ngi koy ittoo nem jege ñaa ñaa ñaa xarañ loo jël quelques réactions euh, ci le euh, comme mi ngoog tey euh, seet si le khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou pour la troisième fois nag visite officielle def na ko fii ci biir Touba ba mu faloog léegi yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla la may a taxaw ak ñoom. affaire bi gëm-gëm la rek maanaam gëm-gëm la liggéey bu looy liggéey da nga gëm jox ko rek moo taxoon ma ne leen man état lay àndal du ma kenn kenn mënu maa vaar man état rek laay àndal Fadel. Ah, tey jii euh, teewaayu ñu gis tey mi ngi ñëw wane waat yar gi wane teggin gi wane dal gi ak bëgg réewam gi ak modeste gi tey daan ci xaar yow loot jàngat. waaw nag moom simplicité lay wane boo xoolee barki dem image bi mu wane yoof noonu image bi mujj viral ñu te jox muy taw mu ne bu kenn jox parasol bi di bàyyi ñeneen na ñëpp tooyandoo moo moom ñaaxarañ bi moom. dombal tànk bi yàpp ci président. Hmm? terewul kat daal yaru ba pare di jàngale chaque jour. dëgg la dëgg la waaw loolu daal mooy li war rek ndeysaan yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar màggal gi nag ma ci ñaanal képp ku ñëw ci Touba na nga ñëw ndànk màggal ci jàmm ñu ñibbi ci jàmm incha allah rabbi ci barke salaay salaam. yàlla nga am jàmm lay bëggee. mi ko ko mel ni euh, boo gisee dispositif bi ni ñuy réorienté woo. mel ni président day waaj a euh, fi mu toll nii ndax gis nañ euh, dispositif bi di waaj a réorienté ngir nag mën génn waat li nga xam ne mooy le président de la république Bassirou Diomaye euh, Diakhar euh, pour dire actuellement mi ngi fii ci biir euh, kër Serigne Mountakha Mbacké Bassirou pour nag amal li nga xam ne mooy jiaram moom le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom mi ngi ci biir sécurité bi ñu ngi wax gars yi pour ñu wàcc sose bi ndax oto bi day daal di dugg kon mi ngoog le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom xam naa day génn génn président day génnaat Euh, président day génnaat euh, mi ngoog day génnaat xam naa bu génnaatee euh, peut-être mu dem fi nga xam ne Kéba mooy jumaa ja ziyaara ji direction mhm. jumaa ja la mhm. ndax boo ñëwee ci dëkk Serigne Touba mhm. ñëw ci bisub Serigne Touba mënoo gis la xalif général de Mouride ba noppi te doo dem fi nga xam ne moom la Serigne Touba tëdd ndax Serigne Touba mu ngi ci biir jumaa ji foofu la tëdd tey ji il faut mu dem fa dugg ci musuleem daal di fa amal ay ñaan xam naa actuellement mën nañu jàpp ne askan maanaam tuuru jumaa di ko xaar ndax heure bi day yemook ñu di ñëw foofu noonu di am